muy jéem a seet euh, barab beeg fi ñu koy defeek ni ñu koy doxale mu mel ne nag ñu ngi toog ak Serigne euh, Moustapha mi nga xam ne moom euh, jëwriñ la ci liggéey bi si ngam surtout jiital ko ci lu baree bari ci wàllu doxin bi ak yi ci aju mu daanaka mu dox ci diggante Serigne bi ak Serigne Youssou yi ci aju ak luy aju ci liggéey bi daal moom mii ci loxoom la nekk muy ko xam ne ku ko mate la te yàgg koo dox ndax bisu xasida bu mag bi nga xam ne moom la si am sot def la ci aju yëpp moom mi moo koy taxawu bokk na ci daanaka ñu koy jëmee kanam këru xasida gaag ya ci aju waaye loolu it du nekk loo xam ne lu kiimaan la ndax euh, ñaari wàll tax na maamam di Sëriñ Abdoulahi borom dër bi keroog bis bi nga xamee ne gane àdduna euh, am na xasida goo xam ne moom la ci sëñ ba taalif day mel ne kon yow boo yëngatoo ci xasida boo bitikuwaat itam di sëtub sëñ Masamba kon day mel ne yow xalima ak daa ñoo la kon day mel ne kon yow <laughs> mënoon yëngatu ci lenn lu dul xasida yi suñ tubaay ak di ko waggar ak di ko bàyyi xel ak di ànd ak ñooñam ñu la ci ñaanal bu baax loolu nag bis bi sañ mel na ne am na yitte ju joo xam ne eh, sa xarit di sa wóolare di sa sëriñ di sa wéetal si am satu jox na ko bis bi te yitte jooju day mel ne ñaari mbir la benn bi ki ko digle la ak lim ko digal mooy ki ko digle mooy Sëriñ Tuubaa di Cheikh Mahamadul Muntaxa ku ne xam diggante ak si am satu waaye si ngeen sutu ku ne xam diggante mag ku koy woo ci xasida ak la ci aju mel na ko ne yow mi nga xam ne itam am na lu bari loo xam ne sottal geeg yi ci aju yëpp jaar na ci sa loxo kon fokk itam ñu taataan ay kàddu yoo xam ne day jëm ci wàllu liggéey bi yeeg di ci ajook ak mbooleem li nga xam ne tënk nañ ko ak euh, fi nga xam ne moom lañ ci moom lañ ciy séentu ci sottal gi li ñu ci sëñ bi diggal fi ñu ci toll lim ci digg liñ ciy séentu lu mu daal lañ bëggoon ba ñu ci diggal lu mu gàtt ak yitte ji nga xam ne sëñ bii si am sutu jox na ko ko moom liggéey bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dañ santaal Sëriñ moom mi nga xam ne mooy sunu yaakaari tey ak ëllëg xam Xamsatu ni nga ko waxee daanaka mënoon koo sax li waaye bëgg lu gën a jot rek te gën a leer maa ngi toog jataay bi ànd ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Fallou moom sëriñ Soxibu waaye boo nee sëriñ Cheikh moom sëriñ Amsa rek mu mu doy sëkk ci xamle nga xam ne moom it ye liggéey bi jëriñ la ci di jëriñ sëriñ bi it te taxawaay yu rafet tamat sëkk saa su nekk de dama naan ko mag ñëpp yam dañuy soxla rek bu ñu ñu delluwaat ci maanaam sunu yitte waaye yaay dëgg-dëgg. jë jë jëriñu liggéey waaye ni nga ko waxee sëriñ Xamsatu liggéey bi dafa rëy ci moom ndax ndigalul sëriñ Tuubaa Seex Moodu Muntaxa la te it ndigal ko ñor loo xam ne yóbbantewu ko yónneewu ko da ko ko waxal boppam te waxin wa it sëriñ bi bari na ndigal yu muy joxe di ca soññee waaye man mi nga xam ne fekkee na jataay ba de yitte ji mu ko jox néewaa na ma gis ko mu jox ko mbir te it wax ne maa ci jëfe nàngam loolu it di ab soññee ba tax na sëriñ Xamsatu fonke ko ni mu ko fonke jàpp ne pajog ajoom mi ngi ci biir ndigal lii moo tax yitteem jëpp mu jëme ko ci maanaam gépp it mu jëme ko ci ba am na loo xam ni sax matuñ ca seere ndax bëggul ko wax waaye taxaw na ca taxawaay yu kawe loolu nag du kiimaan ci moom ndax ni ko sax mun taxaa waxee rek képp kuy yëngu ci xasida yi moom koy jàppale loola du loo xam ne dafa toog ba mu xew rek mu ne ca waaye ñoo ko xamoon démb it naka jekk moo di ak bëggam moo di ab yëngoom mu dox ci ba lépp fekk si ko ci kon bu Seex Moodu Muntaxa xalaatee bisul xasida ci benn fanu muharram ngir gunge ko sëriñ bi gàttandoo ko ko barkeeloo ko ci muharram muharramu wom sasin ga nga xamee ne ci la jóge woon njaareem di jëm si Tuubaa nga xam ne dafa am mbirum ba baatin mu ci am nga xam ne nit yàlla yëpp maase nañ ci ne ma maanaam xisbullaahi ak jundullaahi ñëpp ñu ñi ñëwoon nañ teewee si lu bisam boobee kon loolu maanaam yu xóot la yoo xam ne nii Euh, te yàlla lépp loo xam ne nii da ko defal nitu yàlla am maanaam lépp loo xam ne da ko defal ak nitam ku taasu ca barke boobee ci jamono ja nga xam ne ca la ko defoon saa yu dellusee mën ngaa tuufu ca barke ba kon nag barke boobu la Cheikh Mouhamadou Mountakha yéene mboolem taalibe yi moo tax mu bëgg noo fàttali bis bu tedd boobu yi ak guddi gu tedd googu yi ngir bëgg ñëpp jariñu ci ñu def ko it mu def ko it ak delluwaat ci sëriñ bi ndax xam ne sëriñ bi mooy dellukaay bu mag bi te it sëriñ bi bu doon ab néeg bu baree bunt it buntu xasida moo ci gën a gaaw wala tax ne bi bu doon ab néeg benn buntu la te mooy xasida yi ndax xasida yi ci ci lu wér moo moo ko wax ku ci ne te wàccoo ko yàgg-yàgg fu ma ne danga fekk waaw ko wax ku ci nekk te wàccoo ko yàgg-yàgg fu ma ne danga kon nag nay sàll bi nga xamee ne moom la ñëpp war a war kon Cheikh mu Cheikh dimb dimbale ñëpp xettali ñëpp moo tax mu soññewaat loolu yi kon daal li ñuy ñaan mooy defe ko ni ko sëriñ bi bëggee ak ni ni mu ko diglee te dajee ceeg moom ndax xam nañ ne defe gi ni mu ko bëggee rek moo ci suñu wàll waaye ngërëm di moom bu loolu amee rek mu mu mu mu mu dal ñëw kon daal ñu ngi sant tey gërëm te koy ñaanal moom Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te wér ndax ak yàggam fi njariñ la na ma ko waxoon rek ma baam waat ko mu gën a leer melow boppam ak jikkoom nga xam ne li ñu naan makaarimul axlaaq boo boolee yépp boo ko ci da koy fees dell boo ko ci natt rek day mel ne képp la ma ne ba yëpp mat te loolu maanaam dañ ko dul seetlu waaye lu jafe la nit mën naa doon nitu yàlla ku mag a mag riib cër lool dama karim axlaax maanaam matale ko du du du yomb mu gën a jafe it ci ku xam li xew lépp ba noppi amee makaarim axlaax kon ji jikkoy boppam rek jiite na aw xeet kon nag bu ci boolee doon lim doon ci Sëñ kon moom eh, ñun moom li ñu am sax xamuñu ko nanu ko ñaanal mu yàgg fi rek eh, sëñ Hamza di mii nga xam ne it moom la teg liggéey bi ci loxoom mu ànd koog sëriñ Youssou Diop mii jëwër ñi Hizbut Tarqiyyah yàlla may dañ ci ndam lu kawe seen jot te moom it mu làq ci ngërëm sëriñ bi te yàgg fi lool te yàgg jiite awlu xasida gépp ñu ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa